leen ziare bu baax a baax a baax di wax ni yaaya Anne la euh, président du mouvement Jàmm ak Tawféex ñëw ànd ak samay membre mouvement bi yëpp sama coordinateur ngi nii Khadim Fall coordinateur département baa ngi nii euh, Mame Lay Mbeng suñu mag euh, coordinateur commune bi mi ngi nii Bassirou Diop donc ñëw nañu voté ci jàmm bi ñu ñëwee nag li ñu neex mooy gis nañu ne sénégalais yi seen bopp ñoom comprendre nañu enjeu élection bi ndax xam nañu ni fi mu ne ëllëgu réew mi mooy joué Euh, te Sénégal du réew mu ndaw fi mu ne damay naan vote bi dafa nekk vote entre candidat wu aventure yóbbu réew mi fu ñu xamul ak candidat wu tarixa yi candidat wu diine ji candidat wu jàmm candidat wu sénégalais yëpp candidat wu alal candidat wu koom-koom candidat wu expérience candidat wu compétence loolu nag buñ ñu ko waxee choix bi c'est vite fait réew du ay critique moo koy yor réew dafa laaj expérience te suñu réew mi waruñ ko caaxaane ndax réew la boo xam ne Serigne Touba fii la juddoo euh, maam El Hadj Malick fii la juddoo euh, Seydina Limaamu fii la juddoo Baye Niass fii la juddoo réew moom buñ koy jox nañ xool bu baax kan lañ koy jox ndax du réew mu ndaw. waaye mën nañ jàpp ne euh, élection wu ren jii. Mhm. élection wu tànneef dëgg la ndaxte. Euh, dañuy wax ne scrutin la boo xamante ne nii euh, njiitu réew bi fi nekkoon bokkul. Mhm. donc ñi ki ñuy tànn day doon koo xam ne dañ koy tànnal suñu bopp. dëgg la loolu ndax yaakaar ngeen ne am ngeen ci yaakaar dëgg-dëgg. waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax te d'ailleurs scrutin bi dafa am euh, lu particulier lu mu andi mooy pour la première fois sénégalais yi du ñu folli mais dañuy fal. léegi nag ci fal bi dañu war a xool kan la ñuy fal xam nga esprit folli mooy waral ñuy fal koo xam ne après dañ koy rëcc. Mhm. moo tax tey bu ñu jugee ne dañuy fal nañu xool bu baax ki ñuy fal réew mi nag li mu gën a soxla pour man koom-koom bi gën a rëy ci moom du pétrole bi du gaz bi du tool yi du zircon bi du feer bi pétrole bi euh, koom-koom bi gën a mag bi Sénégal am mooy jàmmam ndax loolu la ñu dëkk àdduna bi yëpp nawee loolu waruñ ko jëndee dara même bu fekkee am nañu alal wala leneen loolu balaa ñu koy jëriñoo nekk si jàmm. ñu ne déjà 16 lay mu jot. Mhm. vingt neuf pour cent rek téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom-ñeenti ñoom ñoo voté gum mhm. loolu est-ce que du lu tuuti ci xayma li ñu foogoon rawatina ñu ngi ci weeru koor waaw xam nga nag man chiffre boobu euh, bi may ñëw peut-être dégg naa chiffre boo xam ne xaw na ko ëpp tuuti mm. waaye nag même bu loolu amee sax euh, élection yi dafa nekk ci euh, condition yi particulières parce que ci koor lañ nekk nit ñi mun nañu xëdd war a ji fekk leneen xew xam nga koor ni muy demee donc man pour man fii ngoon ñuy dem gëm naa ni sénégalais yi dinañu génn voté. Ali ban message ngay lancé population bi. Euh, population bi man dama leen di jaajëfal dama leen di jaajëfal ci seen taxawaay ndax tey bu ñu nee démocratie sénégalaise population bi la bu fekkee am na message bu may lancé plutôt dama koy lancer acteur politique yi di leen wax ni vote bi li mu génnee na ko ñëpp nangu euh, ndax nangu résultat vote bi mooy jëmmal démocratie Sénégal tey Sénégal démocratie la majeure ci àdduna donc vote bi bu génnewee résultat nañ ko nangu ki ñu voteel ñu xamné moy président de la république nañu xamné nekkul président parti bu muy représenté wala président coalition bu muy demal mais président sénégalais yépp la man nak bu am sañ naa ne bu ma mu nekk Amadou Ba ndax pour man mo gën ci réew mi